aousubillah min alsheytan irrajim qaalat alacrabu aamanna qul lam tuminuu walakin qulu aslamna walamma yadxuli limaanu fi qulubikum wa in tutiicu allaha wa rasulahu laa yalidkum min acmaalikum shay'a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 wa ilal xayraati kulliha dalilan wa imaama bi fadlika wujudika wa karamika yaa karamal akaramin mbokk yi yàlla na jàmm yàlla nekk ci ak seen njaboot donc ci laay ji nekkoon ci diir qaalatil arabu amanna bi yàlla déggee na mu dàq ko saxalal leen aslam naa maanaam yàlla jële leen ci aman naa ndax lam tuminoo ja indi leen ci walakin xooloo aslam naa aman naa di mbirum imaan di mbirum aqida di mbirum pas-pas aslam naa di mbirum bokk ci diine ji walla bokk ci lislaam ji kon ba yàlla dàqeelee daa saxal lii bu des nag li mu saxal li mu saxal ci la joyal mbir mi léegi wax naa ne ñaari baat ci nekk ci sunu kanam aman naa ak aslam naa aman naa ji moom ba ko gaa yi waxee sunu borom da koo dàq ne lëmtu mi noonu ndax nangam ndax nangam di ko lim ba bari lool ku loolu nekku ci yow mu doo wax ni aman naa mu ne walakin xooloo aslam naa aslam naa ji moo gën a yomb aman naa ji waaw moo gën a yomb aman ah, naa ji doonte nag yombut daa gën a yomb lee rek waaye yombut aman ah, naa ji yombut aslam naaj ji yombut amu ci benn ci ñoom ñaar boo ci xam ne yomb na waaye teewul aslam naa ji gën a yomb mbokk yi aslam naa ji li muy tekki mooy lislaam aman ah, naa ji li muy tekki mooy imaan ci bind yi weesu bu ñu ko doon topp dañ naan Euh, aqida fatra fitra la bu yàlla di mooñ ci nit te mooy làqu ci wéetal yàlla te moom dong moo la mën a làq nga làqu aqida boobu nekk nañ ci diir maag yéen ci wàllu tafsir bi ci baatu aman na léegi nag ñu dugg ci baatu walakin xoolu aslam na ma ne kon aman naa ji yàlla nee na leen lëmtu minu aslam naa ji moo leen ko wax ne wax leen ne walakin xoolu aslam na aslam naa kon mooy muslim muslim dina ñu tudd islaam ña ca nekk bari tudd ay muslimuun lu tax lislaam am muslimoon ya na ca ba ba noppi àdduna mel nii mu mel ci ñoom laaj boobu ñépp a koy laaj laaj bi di laaj di samp boppam ndax boo nekkee ci mbir te xamoo ko te ñu baree bari mën nañoo nekk ci mbir mi ci duñ ko xam te mooy loolu di tudd islaam nit mën na caa nekk te du te du ko xam kon boo ca nekkee te xamoo ko doo ko mën a dund boo ca nekkee di ko dund te xamoo ko it mën nga koo sori waaw sunu mbokkum daara oustaz Habib Gaye ci caaro yi yal na ko yàlla yokk wér ne na ne ci biir te xamoo ko li nga koy yàqal day ëpp ne ci bitti te xam te xamoo ko wala nga xam ko kon mbir mi du ku bokk rek dugg walla ku bokk rek xam daa ajowoo xam ndax am na ñoo xam ne ñi ngi tashwis tashwis mooy ñi ngi xajamal wala ñi ngi jéem a xajamal lislaam ak ñooñ lislaam boo bokkee ci mbir nag nit di ko xajamal te xamoo mbir ma lum ca xajamal lu mu mën mel rek da nga naan tout à fait jàpp ne loolu mën a nekk lislaam kon bu sunu borom ne gaañu walakin xulu aslam na masaayal islaam yi jar naa leeral ngëneelam yeeg baaxam gi jar naa leeral ba monde moderne xam li xew lépp loo xam ne dañ ko ca xëpp mu di mbalit ñu mën koo taqaleeg loola ndax dañ koo ko taqaleeg moom ba jàpp ne loola lislaam la walla moom moo mel noonu fekk yoo lislaam sori na loolee walakin xoolu aslam naa aslam naa kon muy lislaam luy lislaam lislaam mooy diine ji nga xam ne mooy moo tudd islaam te sallallahu alayhi wa sallam indi woon ko te jële ko ca boromam te jële ko ca boromam te bi mu ñëwee moom tuddewul diine ji lislaam saxaaba ya ànduñ tudde ko ko defuñu kongare tudd ko waaye subhaanahu wa taala moo joxe woowu moo ne woon wa raditu lakumul islaama diina ci almaida wa raditu lakumul islaama diina waaw nangu naa nangu naa ngeen diina woo lislaam ngeen diina woo lislaam rekk laa nangu mu tax ulama yi bi ñëwee ci baat boobu muy lislaam dañ koy tas par baat ba delloo ko ca cosaan la muy baatu salima ñay ñay yëngu ci luxa foofu lañ koy delloo baatu salima daal ko wutal ñetti firi nag ñetti firi menn pir mi mooy alxuluusu wa taxar wa taarri min al afaat al zaahira aw al baatina mooy nit koo xam ne kii set na wecc sangu na ba set wecc ci lépp luy gàkk-gàkki zaahir ak lépp luy gàkk-gàkki baatin kooku bu ñu nee salima bu ñu nee salima maanaam moomu loolu lay tekki fa moom waaw moom set na wecc ci gàkk-gàkki zaahir set na wecc ci gàkk-gàkki baatin ñu ne kon kii moom salima euh, moom set na wecc salima set na wecc kon beneen baat bi di tekki as-sulh amaan as-sulh amaan mooy nit koo xam ne kii defar defar mooy yitteem ba ñépp wóolu defaram googu ñu ne salima dañ ko firi ataa te mooy topp nit ko xam ne kii du mooy ndigal foo ko fekk ba ngay topp ahlul luxa gaa jàng ci luxa ñoom ñooy firi noonu salima bu ko defee kon ki ne ci lislaam ñett yooyu bu mu ci nekk rek benn ba lay tekki waaw benn ba lay tekki loolu nag kon ndekete ay mbir la maa ngi ci suratul xujuraat aya 14 walakin qulu aslamna ba deme ci wàllu sharia nag ñun laaj lislaam ci wàllu sharia mooy lan al maana shari waaw jàngalekat nun lañ koy def yàlla fay leen ba ñëw ci al maana shari ñu ne luy lislaam ñu ne mooy wéetal yàlla wéetal yàlla wéetal yàlla mooy jox ko loo joxul kenn teg ko foo tegul kenn mbaa lenn wéetal yàlla mooy nga def ko muy kenn nga def ko muy lenn tawxiid mooy nga def yàlla muy kenn waaw walla mooy nga ommatul ko ommatu mooy nos ak buum ci sa bakkan bu dee gëléem mbaa yeew ko ci sa baat jox ko jox ko buum nga waaw jox ko buum nga muy wommat ngay dem ca suñ conférence ba ca njóol ca at male waxoon nañ ca ne al islaam mi ngi mel ni rek ku ñu olimee ni nga yëkkate say loxo waa ji topp la wala mu taxaw ci sa kanam nga taxaw al inxiyaadu wala bokk torox yàlla ba tey maa ngi ci al islaam torox yàlla wala seetal sa biir ba ku la xool xam ne boroom xol bu sete ngi nii waaw boroom xol bu sete ngi nii loolu lañ tuddee al islaam loolu lañ tuddee al islaam walakin xoolu aslam na gaa yi dañoo yootu dañoo yootu imaan sunu borom ne accès gu leen teg leen seen loxo ci islaam alquranul karim boo demee ca moom baatu al islaam wala muslim ak yooyu ñëw na ci lu baree baree bari ñëw na ci lu baree baree bari boo dama ca lan am aaya fukk ak ñeent su ma jumut borom baa nga naan xul a xayrallaahi abud a xayrallaahi attaxisu waliya faatira samaawaati wal ard wa huwa yutimu wala yutam qul inni umirtu an akuna awwala man aslama wala takum min al mushrikina wala takunanna min al mushrikina borom bi mi ngi wax foofu ci lislaam waaye da koy dékkër léeg shirk maanaam da nga cay nekk mbaa nga nekk ci shirk nun la ko yàlla jàngalee fii da ngay nekk ci moom mbaa nga nekk ci shirk boo génnee ci kii rek yaa ngi ca kee ni guddeeg bëccëg borom bi wax yonent bi aleyhi salaatu salaam ne ko xul waxal nit ñi defal benn déclaration wooteel wooteel point de presse wooteel nga nga wax lii ma lay wax ne a xayrallaahi attaxisu waliya ndax ku dut yàlla laay jàppe kilifa ndax damay wut kilifa bàyyi fi yàlla wut keneen yàlla mi nga xam ne moo bind asamaan yi bindu suuf si ku lekk moo la jox te kenn du ko jox mu lekk allahu akbar ku lekk moo la jox te kenn du ko jox mu lekk fal yansuru insaanu illa ila taami anna sababna al maa sabba waaw yàlla nee ku lekk maa la jox ci kenn musumaa jox lekk allahu akbar looloo ko tax a mat yàlla looloo ko tax doon yàlla ku lekk moo la jox waaye kenn du ko jox mu lekk yutimu wala yutamu ah waaw waaw képp koo xam ne kii buñ la joxu doo lekk doo yàlla képp koo xam ne kii yaa ngi lekk doo yàlla ndax lekk ci melo yi manqué yi la bokk lekk melow manqué la ndax ku xiif ni muy mel ak kuy lekk ni muy mel ak ku lekk bam rees ni muy mel ñett yooyu yëpp ay meloy manqué te la te sunu borom yooyu yëpp benn du ko ci gaar xiif gis ngeen ko xiif ni muy mel waaw laaj ko ndaw ko ndaay ku xiif ni muy mel waaye ku ku regg ni muy mel ku bokk ba ba rees waaye kuy lekk ni muy mel sukk ci ndab di tibb di sex di nga waaw woote war naa réunion ci jëppal maag maag gone yaag soxna si may leen dañoo bëgg nu bàyyi lekk walla nu bàyyi reer ñu ne ëpp naa def xam naa bu leen ndaw ku ndaa yi déggoon moom daal nu jàpp waaye tabarkalla lekk daa ñàkk fayda ba nga xam ne ah, kaay leen ñu reer tabarkalla li nga doon def lépp nga bàyyi ko desaan ñëw yor ak kudd di peel di seex loolu loolu suñu borom du mel noonu mukk ma wax la ko tey waaw mukk walla nga raxasu fab sa loxo dugal ca ndab la di di di di di ñaag di def sa gémmiñ di di sàq mi moo tax booy xool koy lekk lee nga siis ko kulli xaal borom bi ne yonent bi Euh, neel nit ñi ndax dañoo bëgg a jël keneen def ko kilifa te bàyyi ma fi man mi nga xam ne ku lekk maa la jox te kenn du ma jox xul waxaatal inni umirtu an aw awwala man aslama dégg nga baat bi awwala man aslama dañ ma digal ma nekk ma war a bokk ci ñu njëkk a nangu loolu awwal man aslama bu ñuy def list bi dama bëgg a nekk tête de nan wala takunanna minal mushrikiin ñu ne ma waaye bul boole yàlla ak dara kon boo demee ci alxuraan suuratu an'aam aaya 14 nam tuddee foofa lislaam mooy awwal man aslama mu ngoog baat bi ñëw na salima ñëw na ci biir dañ ca yokkuk alif naka noonu ni mu ko defee mu xaabal li shirk noonu la ko defee mu xaabal lil kufr maanaam dékkërle ko ak kéefër mu ngay wax ca suuratu ali imran ay juróom wala ya'murukum an tattaxisu al malaikata wannabiyina arbaba a yamurukum bil kufri baada is antum muslimun waaw sadaqallahul du leen digal mukk ngeen di jàppe yi ay borom wala ngeen di jàppe yonent ay boroom mu ndax yàlla daf leen di digal kéefër ginnaaw bi ngeen nekkee jullit gis nga kon foofu dafa dékkërle islaam ak kufru nekk fii mbaa nga nekk fee beneen bi ci lislaam ba dema ca sóoratu nisa aaya téeméer ak ñaar fukk ak juróom baat bi di faa ñëw di tekki ixlaas ixlaas mooy sellal mooy def te yàlla tax wa man axsanu xaw diinan wa man axsanu diinan mimman aslama wajhahu lillaahi wa muhsin kenn gënta rafet diine ku jébbal yàlla boppam tey def lu rafet kenn gënta rafet diine ku jébbal boppam yàlla waaw tey def lu rafet wa man ahsanu diinan mimman aslama wajhahu lillah wa muhsin mbokk yi yàlla na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seen njaboot maa ngi ci suuratul maa ngi ci walakin xoolu aslam naa alquran am na fu mu tudd lislaam tudde ko al inqiyaadu lillahi wal la mooy wommatul yàlla lu wa anibu ila rabbikum wa aslimu la man ca zumar aaya 54 wa anibu ila rabbikum ñibbi leen wa anibu transime leen wa anibu transime leen fu ñu transime jëm ila rabbikum ci seen borom wa aslimu la te wommatul ko te nangul ko baatul islaam boo ko doon seet ñëw na foofu mbokk yi kon baat boobu yàlla tabaaraka wa taala mi jàngale daat na ñii walakin xoolu aslam na alxuraan jëfandikoo na baat boobu ci lu baree baree bari ci muminuuna yi ci kaafiruuna yi jamian li annahum xaajiuuna lillahi wa munxaaduuna lahu waaw waaw baat bi ñëw na maasale nit ñëpp maasale nit ñëpp ndax nit ñépp a nangul yàlla ci ci tawa wala ci karhu kurhan ngeen baal ma ci kuru lu lu borom bi wax daf ne afa xayrallaahi afa xayrallaahi yabquun afa xayra diinillaahi yabquun wa lahu aslama man fi samawati wal ardi tawan wa karha wa ilayhi yurjaun foofu la ko wax dafa wax ne ndax da bëgg a jël jeneen diine judul diine ji yàlla indi te nag yàlla moomu la ca asamaan moom la nangul li ci suuf moom la nangul ñee nangul ko ci force ñee nangul ko ci ci coobare te ñëpp ñibbi wa ilayhi yurjaun te ñëpp ay ñibbi ñëpp ñibbi mooy léeg leen nga jékkam yàgg rekk ñu am ku ñu jële ci sunu biir takk ay loxoom takk ay tànkam saañ ay bën-bënam waxi mpax moom xóot suul ca ñëw toog waaw tudde fa mu nekk ay xabru tudde fa mu tudd tëdd bàmmeel daal di ñëw toog wa ilayhi yurja'un ñëpp ay ñibbi gaañaa ngi ñibbi rek tabarkalla gaañaa ngi ñibbi ku sa ñibbi jot rek ndeysaan nga dem ñibbi daal di tëddi ndeysaan coy yàlla na yeex mbokk yi kon bi yàlla waxee ne afa xayra diinillaahi yabxuun wa lahu aslama man fi samaawaati ardi ñépp dugg ci biir yàlla ñépp a ko nangul nangu gi nag dafa nekk ñaari xeet tawan aw kërha tawan ji ñépp a ko bokk jullit ak ku dul jullit xar yeeg bëy yeeg nag yeeg gàncax geeg asamaan seeg suuf seeg weer weeg biddiw yi ñépp a ko nangul ci wàllu kurhan tawan nag dafa am ñu nangu am ñu bañ waaw dafa am ñu nangu am ñu bañ fi ne boo dëkkee comme xar am na fu ngeen ànd ci euh, kurhan am na fu ngeen fi fi ngeen fi ànd ndax juddu màgg xiif lekk mar naan màggat wéradi feebar faatu loolu xar nag weeg bëy nit ki ñoo ci bokk yam ñépp a nangul yàlla foofu waaw waaw allahu akbar naka noonu nag baat boobu di islaam baat boobu di aslama ñépp a nangu tey lee feeñ ca siin lee feeñ ca siin ku ne xam na ne bu ko doomu aadama defoon tey mi ngi ci kaso bi waaye ki ko def mooy ki nga xam ne walahu aslama man fi samawati wal bi moo yebal benn soldaar ci soldaaram yi àdduna si yëpp yëg nañ ko waaw àdduna si yëpp yëg nañ ko waaw waaw benn soldaar dong waaw mbokk yi loolu bu ci yebaloon juróom fuñ jëm soldaar bi daa tuuti ba bët mënu koo gis dañuy pompe jaww ji pour jàpp ni mi ngi fi waaw tey boo jëndoon ab oto bu jóge siin bu ñëwee wàccee bu wàccee ci port bi ñu ñu puudar ko te duñ gis virus bi dañu jàpp ne mi ngi fi rek ñu puudar ko aéroport yeeg ñoom seen yooyu yépp yée ngay tëj yée ngay def ndàngam dëkk yaa ngay def nii lu tax parce que ñëpp kenn tegul sa bët ci virus boobu waaye jàpp nañ ne ma nga ca jaww ja léeg-léeg ñu dégg rek ñu ne fël na barab sàngam bu doon lu ñu gis yet ya mooy dal waaye yet yi munu koo dal ndax gisuñu ko waaw ñu naan dëkk sàngam am na benn cas yàlla tere dëkk sàngam am na ñaari cas yàlla tere dëkk sàngam am na un mort rek te gisuñu ko loolu bu fekkoon mokk na mooy baat bii borom bi subhanahu wa taala wax walahu aslama man fi samawati man fi l ardi tawan aw karha baat boobu nag sunu borom tabaraka wa taala tudde ko al inxiyaadu wa taa mu di topp topp nature beeg jaww jeeg lépp a ko nangul géej géeg montagne yeeg lépp moo tax yonent ya alimu salaatu wasalaam yàlla tudde woon leen ay muslimoon maa ngi ci suuratul xujuraat maa ngi ci ay quatorze walakin xoolu aslam naa nañ dem ci yonent yàlla noox nañ dem ci yonent yàlla noox yàllaa ngi ñuy wan ne yonent yàlla noox ci muslimuuna yi la bokkoon ah waaw waaw ki yàlla njëkk a yónni ci muslimuuna yi la bokkoon demal ci suuratu yunus aaya soixante-douze wa umirtu an akuna minal muslimin moo def déclaration boobu moom Nuux keroog ba mu wooyee wootee conférence de presse am ba wala point de presse ba wa umirtu dañ maa digal an akuna ma bokk minal muslimina ci muslimoona yi waaw ci jullit yi waaw nee na loolu lañ ko digal moom moom moom ma ngi ko wax yàllaa nga indi wax ji ca suurtu Yunus aaya 72 kon yun yàlla nuux minal muslimina déclaration boobu la def wa umirtu an akuna minal muslimina bank leen seen baaraam mbokk yi yàllaa ngi wax ibrahima mi ngi tudd ibrahima yónentam boobu mu ngi ko ci lu ci albaqara aaya téeméer ak fanweer jàpp téeméer ak fanweer ak benn yàlla di ca nettali ibrahima alayhi salaam waaw wa laqad istafaynaahu fi dunya wa innahu fi l axirati la min alsaalihin is qaala lahu rabbuhu aslim qaala aslamtu li rabbil alamin ibrahima ngoog is qaala lahu rabbuhu aslim qaala aslamtu li rabbil alamin waaw waaw suratu albaqara aya 130 waaw nee na yàlla mu ne dañoo tànn ibrahima wala xad istafaynaahu fi dunia adduna gii ibrahima tànneef la fi àllaaxira ibrahima tànneef la fa ci waaw adduna ibrahima tànneef la fi àllaaxira ibrahima tànneef la fa waaw wala xad istafaynaahu fi dunia wa innahu fi l axirati la min alsaalihin ibrahima tànneef la adduna tànneef la àllaaxira aw waaw nga ne yàlla lu ko def tànneef àdduna def ko ko àllaaxira mu ne looloo jar looloo jaralaaj a laaj nag voilà la question lan moo def Ibrahima mu nekk tànneef àdduna nekk tànneef àllaaxira juddu ba la déedéet déedéet ah askan wala déedéet nationalité ba la déedéet ma la ko ko def is qaala lahu rabbuhu aslim yàllaa ne ko nangul qaala lëmtu nangu naa jeex na yàllaa ne ko nangul mu ne nangu naa aha lislaam daa am yooy nangu mu ngi ci kanam lislaam daa am yooy nangu yoo xam ne boo ko nanguwut hmm, ñu jàppe la ku nanguwut Ibrahima bi ko borom bi ne nangul daf ne nangu naa nangu naa jooju moo ko def mu doon tànneef ci àdduna àllaaxira mu doon fa tànneef nangul mu ne nangu naa waaw te nangoo neex tabaarkalla nangu naa li rabbil aalamiina waaw mu daldi di nangu looloo ko ko def rekk nag tabaarkalla waaw ba demee ci yonent yuusuf yonent yàlla yuusuf ca sóoratu yuusuf aaya téeméer ak benn su ma jumut ba nga xamee ne Yuusuf jaar na ca nattoom ya ba toll ci nattu yi di jeex nattu bu ne mu xuus ca waaw nattu bu ne mu xuus ca ba xëy yeewoo pale <laughs> allahu akbar nattu bu ne Yuusuf xuus ca rek ba xëy yeewoo pale gone gañ takkoon sànni ko ca teen ba gone gañ takkoon sànni ko ca teen ba ndeke pale la jëm te buñ ko sànniwutoon ca teen ba du dem pale waaw buñ ko sànniwutoon ca teen ba du dem pale moo tax mu dem pale ndeke ca teen ba la war a jaar teen ba mooy yoonu pale ci moom <laughs> allahu akbar teen ba mooy yoonu pale ci moom waaw ndeysaan président yàlla na ko yàlla yokk wér jamono ñëw na génne gañ ko génne assemblée ndekete mooy yoonu paleem waaw président Wade nekkoon France ndekete indi giñ ko indi ci pénc mi mooy yoonu paleem waaw waaw wax ak kenn ku ne sa yoonu sa yoonu defaru nattu lay doon yu la yàllay teg boo ca génnee rek tabarkal yonent yàlla yuusuf daal di yeewoo pale waaw seetëtët dépare kanaan dugg ca teen ba génn ca teen ba war ca mbaam ya ila égypte waaw àgg égypte dem kër buur ba jóge kër buur ba ila kaso wamin kaso ila palais mu jeex tàkk wa min kaso ila palais hmm? waaw waaw léegi nag ba mu yeewoo palais nag mu daal ni rabbi xad aatay ci nii min al mulki wa allamtani min tawil ahadith faatira samawati wal ard anta walii fi dunia wal axira tawaffani musliman wa alxiqni bi saalihin yàlla yàlla mu ne ah mu ne ko jox nga ma nguur maa ngi nii yeewoo pale yaa ma jàngal tawilal ahadith sunu mbokkum daara nu ngi ko dégg barki démb ci al asfiya cettt ci suba teel gi mu nekk ci loolu macha allah bi yàlla jàngale yusufa eh, tabarkalla ni muy firi li ci pénc mi waaw mu am solo lool yàlla na ko yàlla sàmm jotuma jàpp tur wa waaye sunu borom yonente mbii di Yuusuf ne ko anta walli yii fi dunya wal axira loolu la wax yàlla te mbokk yi àdduna ku wax yàlla lii rek tàmbalee noppalu ku ko gàntul lii sonn baat bii Yuusufa wax anta waliyyi fi dunya wal axira ko wax yàlla nag tàmbalee noppalu wax ju ànd ak jëf wax ju ànd ak jëf anta waliyyi fi dunya wal yaay sama kilifa adduna yaay sama kilifa bu ëllëgee wala boog yaay sama kilifa tey yaay sama kilifa bu ëllëgee cay na wax ju rek anta waliyyi fi dunya wal axira ah tawaffani musliman dégg mu ne maa ngi lay ñaan booy jël sama roo gi ma nekk muslim bokk ci muslimoona yi bokk ci lislaam nangul la wa alxiqni bi saalihiina wa te nga boole ma ca ñu baax ña yàlla nañ bokk ca ñu baax ña waaye te mooy saalihuuna ya baat bi kon dégg nga wax naa la ne nuuxun loolu la wax ibrahima loolu la wax yuusuf lii la wax ndekete kon àdduna lii rekk a fi nekk nangul yàlla mbaa gàntul ko boo ko nangulee yaa ngi bokk ci walakin xooloo aslam naa boo ko nangulul bokkoo boo ko nangulee ci walakin xooloo aslam naa boo ko ci nangulee loola ca ngay nekk di góorgóorlu ba ba ba ba génn foofu dugg ci islaam dugg ci imaan te boole leen ñoom ñaar te boole leen ñoom ñaar waaw bu ñu demee ci nabiyulaahi Muusa Muusa moo daje woon ak Firawna moom it nañ ko déglu ca suurtu Yunus aaya 84 yaa xaw yaa xawmi in kuntum amantum billah fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin loolu leen wax Muusa moo wax loolu yaa xawm ee eh yéen sama nit ñi yaa xaw mi bu fekkee gëm ngeen yàlla wéeru leen ci moom in kuntum muslimina bu fekkee ay muslimoon ngeen bu fekk ay musulman ngeen loolu la Moussa waxoon aw nitam te ma nga ca biir waaw waaw Isa bnu Maryam Isa bnu Maryam Isa may doomi Maryam waaw moom am Sëñ Tuubaa ne woon yaayam ibnu kilaabi haaliki ndeysaan fusti waaw gu neex googu tabarkàlla seet te te moom suñ tubaa yal na nu yàlla fayal xaw ma sax lu laa war a wax wala déet waaw <laughs> kenn mësu koo gis rek fusti seet te mu ne ko ibnu kii laa bi haaliki waaw sa doom ji alkuut mu ne ko maa la ko wax alkuut nanu déglu ca Ali Imran ay cinquante-deux fa lamma axassa isa minhum alkufr qaal man ansaari ila llah qaala alxawaariyuuna naxnu ansaaru llah amanna billah washhad bi anna muslimuun washhad bi anna muslimuun ndeysaan ca Ali Imran aaya cinquante-deux nee na ba isaa yëgee isa bnu maryam ba mu yëgee al kufru ci ay bokkam ba mu yëgee al ci ay bokkam dafa woote daat ne man ansaari ilallah waaw ku bëgg a nekk sama surga ñu ànd dem ca yàlla liggéeyal ko na ca loxoom waaw ku bëgg a nekk sama surga ànd ak man ñu dem nekk ci loxoom alxawaariyuuna saxaabaam ya noonu lañ tuddoon ci jamono jooju daal di yëkkati seen loxo mu defe na dañ naan ko naxnu ansaaru ka ñu dindi damir ji ka daal ne ko naxnu ansaarullah téetéet naxnu ansaarullah du ñu ansaaru ka déedéet dañ lay jéggi ansaarullah moo tax nit buy dem ci nit na ko yàlla yóbbu bu fay jóge na ko fa yàlla jëlee waaw waaw nahnu ansaarullah waaye waxuñu ko nahnu ansaaru ka te buñ ko tontoo woon ni mu wax ansaaru ka lañ koy wax waaye dañ ne ko nahnu ansaarullah mbokk yi maa ngi suuratul xujuraat aya 14 walakin xuulu aslam naa maa ngi ci xuulu aslamnaa muy al islaamu nahnu ansaarullah amanna billahi washhad bi anna muslimun seedeel na nun nun ay jullit lañu seedeel na nun ay jullit lañu waaw seedeel na nun ay jullit lañu mbokk yi yàlla na jàmm yàlla nekk seen ak seen njaboot sunu borom subhanahu wa taala mi ngi nuy wan di nu jàngal ndekete yëf yi leen rek la nangul ko mbaa gàntul ko waaw nangul ko mbaa gàntul ko ña nangul mi ngi nii di leen tudd ña ko gàntul mi ngi nii di leen tudd waaw kenn par kenn la leen tudd mu ne fa lamma axassa isa minhum alkufr qaala man ansaari ila allah qaala alxawaariyuuna nahnu ansaaru llah amanna billahi washhad bi anna muslimun waaw seedeel ne nun ay muslimun lanu waaw loolu lan wax isa ibnu maryam mooy lan kon nangul nanu yàlla ndekete islaam kon mooy nangul yàlla subhanahu wa taala summa arsalallahu rasulahu muhammadan sallallahu alayhi wa sallam bi sharia bi sharia al mukammila li haulai l ambia wa li haada xaatabahu llahu bi xawlihi bi ñu toogeeb diir bi ñu toogeeb diir yonent yàlla nooxun dem yonent yàlla ibrahima dem yuusuf jaar fi dem muusa jaar fi dem isa bnu mariama jaar fi dem ñu toogub diir njool màkka annabiyul mustafa muhammadun sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne moom la moom Cheikh Alhaaj Malik ne woon law lam yalux fi fadail kawni talaatuhu tabxal bariyatu fi dalmaai allahu waaw nunu ko ñoom oustaz xalifa mbay di firee al mustarshiduuna wal mustarshidaati waaw moom Sëñ Tuubaa ne ko tabarkalla lam yabdu mithlu al mustafa muhammadi lam yabdu mithlal Moustapha Muhammadi sirran wa jahran fil baraya samadi kooku la yàlla ne ko inna inna awxaynaa ilayk allahu akbar inna awxaynaa ilayk kama awxaynaa ila nuux ndeysaan mu ne ko <clears throat> la ma la la ma wax yi woon noox moom laa la wax yu li ma la wax yu nii laa wax yi woon noox li ma la déey laa déeyoon noox la ma déeyoon noox laa la déey ah mu ne ko waaw inna awxaynaa ilayk kama awxaynaa ilaa nuux waaw li ma la déey nii mu ne am ne ko moom laa déeyoon noox la ma déeyoon noox moom laa la déey nii wa nabiyina min baadi ak bépp yonent bu ñëw ginnaawam foofu la boroom xam-xam yi di waxee ne kon nooxun moo jiitu ci yonent yi waaw ñu ne nooxun moo jiitu ci yonent yi ko nga ko wa nabiyiina min baadihi ah waaw wa awxaynaa ilaa ibrahima mu ne ko la ma la déeyoon déeyoon ko noox moom laa déeyoon ibrahim wa ismail la la déeyoon déey ko noox déey ko ibrahima moom laa déey doom ja ismail wa isxaaq lama la déeyoon déey ko noox déey ko ibrahim déey ko ismail déey ko isxaaq wa yaqub moom laa déeyoon yaqub wala asbaat moom laa déeyoon sët ya muy doomi yaqub yi nga xam ne matoon nañu fukki doom ak ñaar waaw fukk ak benn ak yusuf muy fukk ak ñaar al asbaat wa isa loolu kat laa dé laa déeyoon isa bnu mariam ah waaw wa ayub loolu laa déeyoon ayub wa yunus loolu laa déeyoon yunus wa haarun ak haarun wa suleymaan ak suleymaan wa aataynaa daawuda zabura ma jox daawuda zabuur te zabuur la ci nekkoon mooy li nekk ci liire ci suma borom mbokk yi maa ngi ci suuratul xujuraat maa ngi ci ayatul ayat aaya quatorze walakin qulu aslam naa may wane ñi nekk muslimoon ci kaw suuf yàllaa ngi lim mbooloo yàllaa ngi lim mbooloo tàmbalee ko ca muhammad alayhi salaatu salaam ne ko noohun ah noohun ibrahima ismaila isxaaqa yaqub ak fukki doom ak ñaar yu yaqub ya isa ayub yunus haarun suleymaan daawuda wa rusulan qad qasasnaahum alayka min qabl mu ne am na yonent yoo xam ne wax naa la seen jaar-jaar lu jiitu tey wa rusulan lam naqsusum aleyk am na yonent yoo xam ne nettilawuma la seen seen jaar-jaar wa kallama allahu muusa taklima mu ne yàlla wax ak muusa ñooñu nag rusulan mubashirina wa munzirin ay yonent lañ yoo xam ne dañuy bégal ñi ma gëm di xupp ñi ma weddi li allaa yakuna li naasi ala llahi xujjatam baada rusul ndax bu ëllëgee ku ma layool gañe la ñooy avocat yi yàlla yi yonent yi mu lim ñooy avocat yàlla yi wa kaana lahu azizan xakima yàlla lu ne la sañ waaye du juum benn yoon mbokk yi kon ku jàng lii ci alxuraan da xam ne lislaam ji yàlla ne walakin xoolu aslam naa du rek bokk naa ndekk daa am lu tax ngay bokk mooy da ngay nangu yàllaa ngi doon lim mbooloo yu baree baree baree bari bu nu yàlla mayee nu dund ba àjjuma yàlla nu dund ba àjjuma te weesu ko ñu del siwaat ci bindi bi ndax jeexagut walakin xoolu aslam naa jërëjëf ci ànd beeg si defeem seen xajo jéglu soxna yi jéggulu sëriñ si ñaan jàmm ci réew mi ak réew yi ko wër ñaanal jànkati alxuraan yeeg jàngalekati alxuraan yi yàlla yàlla soqali daar yi feebar bii ne ci àdduna di wëndeelu di wëndeelu ngelaw li fi jaar bërki démb yàlla na ko yóbbu waaw yàlla na ko yóbbu sànni ko ci géej gati bu mu del seeti te bokk wenn jën lekk nu koy lekk ki leen nekkoon ci wàllu xarale moo di seen mbokk Pape Lay Dieye ngeen àndoon tafsir beeg seen mbokk Alioune Sall yal na yàlla sàmm nu sàmm leen ar nu aar leen def jàmm si réew mi def ci réew def ko ci réew yi ko wër yal na yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir ci def ci suñuy poos dara wa axiru daawana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu